benn ñu xalaat naka la ñu génnee ci loolu looloo indi téere boobu ñu tànk ñu tuddee ko plan stratégique de développement plan boobu nag moo ñu may tey ñu def ko xayma ko xool fan lañ ci toll fan lañ ci toll mooy lan deux mille vingt deux ba deux mille vingt six ñeenti at la woon naka la ñuy jógee adhérents yi mooy ñu tabax ay agence waxtu bii may wax ak yéen am nañu agence Fatick mu polariser département yi Sine Saalum bi am na ñu agence Mbacké mu polariser département yi nekk zone Bawol am na nañu agence Bignona mu polariser département yi nekk biir Casamance loolu moo di lu ñu waxoon ci téere bi jógee adhérent yi beneen mbir bi moo di yéexaay boobu naka lañ koy defee ñu daalee wut ay xarala yi baax a baax xarala yooyu moo di nañuy jël informatique bi ñu gën ko utiliser ci la ñu collaborer ak école supérieure polytechnique ba tey am nañu li ñuy wax ay logiciel logiciel yooyu dafay nekk ci biir opito euh, yi day nekk ci biir centre de santé yi mais surtout ñu ngi ko soog a commencé ak pharmacie lan lay permettre à la minute adhérent bi bu ñëwee taxaw daañ ko mën jox bon de commande jox ko médicament dinañ xam ndax kii adhérent la ndax kii mi ngi cotiser te loolu yëpp da doon am jafe-jafe ci ñun leneen li moo di lan ñun dañu di mutuelle bu nga xam ne yemul rek ci rembourser ay garab dañu dañuy jàppale askan wi jot na ñoo def ay centre de santé yi nga xam ni dafay ñëw pour euh, teeru askan wi ñu feebar te mënuñu fayeeku ñu daalee xool prix yi woyof ci ñoom di jël adhérents yi tey sax mbégte bu ñu gën a am fii ñu nekk ci siège bi ñu ngi démarrer benn banqaasu buy faj ay bëñ ci biir siège bi banqaas dong la am na yeneen banqaas yu ciy tegu yi nga xam ni lépp lu jëm si santé doom santé xale mooy unité mère enfant dinañ ko def fas yéene gën ko yokk suñu mbégte mi ngi toll tamit ni Casamance am nañ fa centre médico social bu mag a mag population baa ngi koy fréquenté ñu xuusaat dem ba Cap Skirring ñu amaat fa centre bu bees ci 2023 bi ñu xuusaat dem ba bawal Mbàkke ñu amaat fa centre euh, cabinet dentaire bu tijjeeku donc loolu mooy suñu bilan ci centre bi maanaam suñu politique de soin mais lu ëpp solo bu ñu xaymaa suñu budget mi ngi nekkoon ci 2 milliards mais un 1 trois 300 millions yi yëpp ñu ngi ko fay adhérents yi ñu ngi ko fay pharmaciens yi fay ko hôpitaux yi fay ko centre de santé boo gisee ni loolu montant boobu dafa bëri wax nañu sànq tamit lu jëm ci affaire euh, facturation ndax mutuelle bi lu tax mu gën a sonn boo gisee un milliard trois cent yooyu yëpp dafay dafa di facturation yi xam ni baaxul dafa jéggi dayo ndax boo dee man mutuelle laa bokk nga yor lettre de garantie boo demee hôpital danaan kii kat nu ma koy facturer bokkul ku nga xam ni yorul mutuelle boo yéene si di fajeeku suñu système dañuy wax patient à ses frais maanaam patient bi moom la ñuy xool si capacité lan la mën a fay bu dee moom dix mille la mën a fay fekkee am na lettre de garantie ñu xayma ko mu ëpp loolu cinq fois donc fu ñu waroon fay bu fekkee ne adhérent bi ñëwul ak lettre de garantie dix mille francs ñaari junne ah fekkee lettre de garantie bi la dañuy facturer ay fukki junne vous imaginez loolu nu mu chéré loolu moo tax ñu ngi ciy waxtaan ak waa ministère des finance ak waa ministère de la santé te dégg nañu léegi lu ñuy wax dal na suñu xel ñu ngi góorgóorlu ak ministre bu bees bi comme nu ko représentant waxee ñi daalee waxtaan ci politique yooyu ñoom seen bopp ñoo ko wax mën xool naka la ñuy xoolaatee prix yi ñu harmoniser ko ba nga xam ni mutuelle yi nga xam ni dañ fee nekk pour jàppale waxuma rek askan bi mais d'abord fonctionnaire yi ndax état bi di joxe garab zéro franc état bi ñun daañu rembourser agent yi ba 63 pour cent cinq 60 pour cent ak cinquante pour cent donc mbir moomu état bi daf ko war téyel boppam.